téléspectateurs yi asalaamaaleykum ñi ngi rafetlu ànd bi ak télévision Futur Média benn waxtu jot na bisimilah ci xibaar yi di ci gën a fës conseil constitutionnel d'accord na ngir rek sénégalais yi ñi nga xamante ne jot ñoo jot seen carte électeur ñu mën a voter ak yeneen xeetu pièce demee ni ki ay carte d'identité yoo fi nekkoon wante it permis de conduire passeport ak yeneen jumtukaay yoo xamante daal dañ leen ci mën a ràññee loolu nag ginnaaw bi ko président Macky Sall sàkkoo kon ëttu àttekaay boobu nangul na ko ko ca nag ku nekk ak ni nga gisee bi dogal ñu am gan nag ci mbiram élection yeeg yu ni mel colonel Momar Gueye xam-xamam màcc ci wàllum mbind moom it dinañ ci ànd ak moom colonel maa ngi leen nuyu. wàllu yoon ba léegi ci élection yi lu toll ci fukk ak juróom-benn ndaw yi nga xamante ni ñi nga doon manifester ca place de l'indépendance ginnaaw ba ko Abdoulaye Wade sàkkoo ñoom nag tey ji daal defeere na leen ca parquet bu kon ña nga ca kaavu tribunal bi di xaar rek procureur lett leen wala mu firi leen ca noonu ba léegi campagne ba moom mu ngay wéy daanaka ñaari fan moom moo ci des ba tax na candidat yi rek ñi ngi ci mbedd yi ñoom ñëpp nag ci ndakaaru rek ngir amal seeni i meeting ak caravane yu mujj daan ci dem fu nekk ngir ànd ci ak sunu ay reporter bu ne nag ca Richard Toll daanaka seen tiitaange léegi tey mu saafara ndax pont Sermat ba nga xamante ni daanaka ci atum 1930 lañ ko tabaxoon naroon a daanu nguur gi nag nee na dana tabaxaat boobee pont cee def lu toll ci téeméer euh, lu toll ci junni ci ay millions yoo xamante daal dinañ ko dugal ci boobee pont su ko defee jafe-jafe askan wu nekk foofa ci Richard Toll dakk su ngeen taaxil loon yaatal xibaar yi mbokk yi dal leen jàmm ci xibaar yi ni ma leen ko waxee conseil constitutionnel nag euh, nangu na rek Sénégal yi nga xamante ne ñoo jot seen carte électeur bu dimanche fanweer yi fan ci weeru juillet ci élection législative yooyu ñu mën a vote ak yeneen xeetu jumtukaay bokk na ci yooyu ay permis conduire passeport wante tamit carte d'identité yi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekkoon boole kook récépissé yi jot loolu nag ginnaaw rek bi président Macky Sall bindee benn lettre altine ju génn ngir wante lu exceptionnel la buñ sukkandikoo ci conseil la seen avis bi exception boobu nag li ko waral mooy nee nan Sénégal yu bëri duñ mën a jot seen ay carte électeur dimanche loolu tax ñu nangul leen lu ni mel ca ndar nag askan wi joxe na ci seen xalaat ñu ci bëri nag jàpp nii rek lii day loo xamante ni day wane ni démocratie amu ci am ñoo xamante ne ànd nañ ci ndax dana tax ay Sénégalais yi nga xamante ni jotuñ seen carte mën a voté Ousseynou Diop Habib Seck waaw ni ma ko gisee rek mooy xëy na lii moo gën quoi pour man lépp li nga xam ni mooy indi jàmm ci Sénégal dañ ko war a xool def ko mu mu dal opposition muy parti politique bi euh, muy parti au pouvoir ñëpp ñu ñu xool daal li nga xam ne mooy indi jàmm rek ci Sénégal bu dee loolu mooy indi jàmm ci Sénégal nañ ko def ba pare dimanche ñëw na ba pare léegi mu jeex incha allah. pour man ni mu def day delloowaat démocratie bi gannaaw loolu mooy lan mooy dégg naa si biir da ngay ak permis de conduire ak passeport. loolu ñun dépassé nañ ko waaw li ma mën a comprendre daal mooy moom bi ñu ko falee dafa war a euh, yóbbuwaat démocratie ci kanam mais waru ko delloo gannaaw. que carte d'identité yi génnul les gens veulent voter alors il fallait quand trouver une solution par rapport à ça cela le président de la République euh, bind na benn lettre adressée au Conseil constitutionnel et le Conseil constitutionnel a une décision cest à de permettre à ñi nga xam ni. Euh, amuñu carte d'identité seen carte de ndiggantewul wala yu mel noonu ñu man vraiment ñëw euh, voter. waaw parce que ñun rupture lañ soxla woon moom li mu indi kenn xamul lan la waaw absence de dialogue politique décision yoo xam ni kenn xamul lan la daal bon je comprends waaw. li nag ay gis-gis la yoo xamante ni askan wa nekk ca ndar ci am nañ ko ci dogalu conseil constitutionnel nangu rek càkkute fu njiitu réew mi Macky Sall maanaam doomu Sénégal yi bu ñu yeggee dimanche ñi jotagul seen carte électeur mën a voté ak yeneen pièces yi maa ngi ko doon wax sànq sunu gan di colonel Momar Gueye moom mooy président PEN Sénégal vice président association des écrivains du Sénégal euh, bokk nga ca Sénat sax waaye teewoo fii ci turu Sénat moo colonel ñu koy préciser rek noo gisee déjà avis conseil constitutionnel bi. waaw man na euh, ma fekkee ni damay wax ci sama taxawaayu bindkat nga xam ni ñun dañu am suñu euh, liberté boo xam ni bilee lépp lu xew ci réew war nañ ci wax ndax euh, Aline Badara Bey suñu président day wax ni le malheur d'un peuple commence par le silence de ses écrivains maanaam écrivains yi bu ñu noppee rek du baax mm-hmm. li ma gis mooy damay rafetlu bépp jéego boo xam ni dañ koy def ngir ñi nga xam ni ñooy askanu Sénégal li seen yelleef ñu mën ko doxal niñ ko bëggee yelleef gi mooy lan voté ci la bokk voté xam nga tubaab yenn ko indil waaye nun lu jiitu wote Kajoor amoon na Bawol amoon na Siin amoon na Saalum Njàmbur lépp hmm. amoon na ñu ko daan jiite hmm. te dañ daan toog waxtaan ba déggoo ñu ni kii mooy teeñ Bawol wala kii mooy dameel du Kayoor wala kii mooy barag ca waalo te daawuñu reyante daawuñu indi lenn loo xam ne li fitna lay niru kon li ma gis nii bu fekkee ni ñi nga xam ni jotuñu jot seen carte jotuñu jot seen carte mën nañu leen a xàmmee ci kayit yi ñu wax ndax du du kenn du voté ak permis kenn du voté ak leneen dañu ni soo su ñu la waree xàmmee. Mhm. nga indi sa récépissé ñu xam ni yow mii yaa tudd Momar Gueye sa numéro carte d'identité lii la ñu xool la nga doon Momar Gueye ñun la kon yow mën nga dem voté ji waaye waxuñu ni da ngay yore permis rek daal di dem voté du demee noonu. mais jafe-jafe bi sax mooy loolu parce que ñu ci bëri aussi même bu dee ko jege leen jàpp mooy ñoom tàgg tàgguwun leen bi ko njiitu réew mi def ñaareel ba mooy comme processus électoral bi géewu ñoom ñoo ko bokk laajoon na ñu ñu ko. waaw xam nga xam nga itam euh, donte euh, waxtaan dafa baax diisoo dafa baax waaye njiitam dafa am loo xam ni moom la ko yoon jox. loo lépp loo xam ni yoon may na ko ko ci nga xam ni bu bu bu mbir mi doxul na mu war a doxee moom la ñuy la ñuy sikk bu ko ko yoon mayee am na droit. de diisoo ak ñi mu war a diisool ngir mën a gis bunt boo xam ne bi bu ko defee jàmm am man jàpp naa ni loolu xëy na moo tax njiitu réew mi euh, wax ak waa conseil constitutionnel. mais loi bi xam nga tamit loi njiit tamit respecte loi loolu bokk na ci colonel parce que ñoom it euh, ba léegi rek li mooy gis-gis yi nga xamante am nañ ko ci mooy comme code électoral bi def na woon bu njëkk munoo voté lu dul. pièces yi nga xamante ne mooy carte d'identité CEDEAO est-ce que loolu wartoon tax ñu gën a farlu ci liggéey bi ngir bañ a egsi fii. Euh, liggéey bi ngay wax loolu dëgg la certes mais liggéey bi ngay wax man fekke naa fi ñuy defaree carte d'identité yi li ma wóor mooy ñi nga xam ne ñoo nekk daaf. dañu doon liggéey ba nga xam ni surmenage moo leen doon jàpp man dem naa ba fekk fi ñu doon defee mbir yi waaye xam nga affaire technologie dafa am yow yaa ngi nii euh, euh, journaliste nga léeg-léeg nga commandé benn benn élément boo xam ni yéen a ko programme ba pare soo ci cliquer du génn technologie moo mel noonu il faut que mu am ay yoo xam ni doxewul mais yàgg na fi mais mi ngi doog am quand situation bi. waaw xam nga parce que ci avis bi sax nee na si conseil bi nee na situation exceptionnelle. donc exactement xam nga nag à situation exceptionnelle mesure exceptionnelle mbir mi xam nga bu fekkoon ni du dañu am ay maanaam 47 liste ak yu demee noonu xëy na mbir mi du méttee nii waaye li indi jafe-jafe yi tax moo tax ñu war a seet nan la ñuy fexe ba ñëpp mën a voter bu fekkee ni lii conseil constitutionnel wax. Mhm. mën na tax sénégalais yëpp wala ñu ci ëpp ci ñoom mën a voter loolu te muy jur jàmm. Mhm. loolu man. dama ci ànd. justement nee nga bu fekkante ne dina mën a tax ñu voté mais ñu ci bëri nee naan récépissé yi bindoon ci centre de vote bi wala bureau de vote bi est ce que loolu aussi laajul ay dispositions yu ñu war a jël ngir ñi amagul seen carte d'identité mën a xam fu ñuy voté. am na ñoo xam ne am nañu récépissé te daan voté. xam nga mbir mi dañuy wàññi dañuy wàññi euh, jafe-jafe yi rek la ñuy wàññi réglé wul lépp jafe-jafe yi rek lay wàññi am na ñoo xam ne am na ñu récépissé xam nañu fañ daan voté suñu fa demee. mais dafa am ay changement quand ci bureau yi ak yooyu yenn yenn yenn. déedéet euh, changement yi ci am mooy léegi xam nga bureau yi bu njëkk 900 personnes. ñoo ci daan voté léegi ñu wàññi ko def ko def ko 600. Euh, ndax dañuy bëgg balay 18 heures di jot ñëpp mën a voté dem seen yoon. Mm-hmm. moo tax bu fekkoon ni dafa amoon 900. neuf cent neuf cent yu voté ci benn kii ñu xaaj ko bu ñu ko xaajee la ca des ñu indi ko du ñu ko yóbbu ci beneen beneen béréb même soit centre bi lay doon ñu def fa xëy na abri provisoire wala yu demee noonu pour kooku mën a voté foofu mhm. kon li nga xam ni moo ko nar a jafeel du du doy waar noonu mhm. léegi nag ñu ñëw ci waxtaan bi parce que tam bokk na ci ndax temps yi dënn yi xaw naa jóg euh, xiroo bee ŋaayoo bi ci géewu politique bi mhm. naka lan mën a def ngir jàmm jooju mën a am parce que gis nañ yéen écrivain yi fan yi ngeen bi soxal man ndax li yeneen yi xëy na ay wax naat waxtaan de nii rek mais ñëpp danañu mës a juboo waaye li ma amal solo mooy réewum Sénégal nun ñoo ko moom dara jaru fi yee fitna te lii indi fitna ñett la di wax wax joo xam ni day merloo nit ñi wala ngay wax wax joo xam ni day tiital nit ñi wala ngay wax wax joo xam ni day yee fitna wax fu réew tàkke wax moo ko taal moo tax ma bëgg ak nit ñi lu ñu bëgg bëgg seen seen soxla saafarawu nañu jàpp ni dara jarul eh, indi fi fitna ba réew mi nekk ci jafe-jafe yoo xam ni kenn séntu ko fi yoon mm-hmm. loolu naka lan mën a def ngir ñu bañ yegg foofu. Eh, eh, xanaa xanaa am am am am xolu muñ te ànd ak dal muñ ak dal. ndax bu dee ni da nga ni man sama soxla faaw mu faju wala lépp la yàq kooku foo ko defee rek di nga di di nga di nga mas a def loo xam ne lii di nga ko réccu kon nit ñi nañu seet li ñuy wax lan moo ci waree fu ku ne parce que ñaar ñooy xëccoo ñi nekk ci nguur nekk ci kujje gi ku ci nekk lan nga war a def ngir li nga wax nii mën a am euh, ñi nga xam ni ñoo yore nguur gi dañu war a wàccoog li nga xam ni mooy seen warugar maanaam li ñu war a def ba yépp koo xam ni ki lay sénégalais nga nga fexe ba li ngay xalaat def. ci wàllu vote bi nga mën ko def maanaam kayit yi na yemb Euh, béréb yi ñu koy defee na nekk béréb yoo xam ni itam na mu war a mel la war a mel waaye yow mi nga xam ne itam yaay sénégalais bi nga ni ah man de dem naa béréb sàngam la ma fa fekk méngoowul ak la ma doon xaar bu mu la jaral génne paaka bu mu la jaral génne jaasi bu mu la jaral saaga bu mu la jaral neng na nga ko fa na nga ko wax. Mm-hmm. ba ñëpp xam ni yow mii sa sa yitte mooy lii. Mm-hmm. ñi ko mën a faj ñu faj ko ndax du du ci béréb yi nga xam ni dañ fay voté ak yu demee noonu am na ñeneen ñoo xam ni ñooy lu mel noonu. Mm-hmm. toll na nag sa woote bi gars yi déggagun ko ndax gis na ay fetal jug fii ndaw ñu bëri tamit ñu impliqué leen sax ci violence surtout jeunes yi nga xamante ni dañ leen di utiliser loolu aussi nu ngeen ko jànga jàngal gis nga damay damay ñun mënuñu lu dul diggéey wax yedd fàttali ku ci nekk luy sa warugar loolooy suñu warugar ñun ku ko dégg baax na ku ko déggul ay du du du weesu boppu borom. képp ku fi yaakaar ni mën nga fi taal réew mi ba mucc ci booba xamoon li ngay def li ma li ma wóor mooy nun wax nañ li nga xam ni moom lañu moom moom la ñu war a wax xale yi te képp koo xam ni sa ndey liggéey na sa baay yar la doo nekk ci mbedd mi. di di di jaay sa bakkan ak di di sànni xeer ak di fetalante ak di mm-hmm. door ndax manifestation se gis nañ bi waroon am altine ay ndaw lañ ci jàpp maa ngi wax sànq ne ña ngi leen defeere parce que ñoom jeunes yooyu di xaar ñu yóbbu leen gisuñ ci benn acteur ci ñin jàpp xam nga xam nga yàgg naa ko wax nee naa ñu bare di leen sant kaay leen génn ci mbedd mi kaay leen xeex su ngeen demee ca rang yi jiitu du ngeen fa fekk seen doom du ngeen fa fekk seen ndey du ngeen fa fekk seen baay du ngeen fa fekk kenn kuy doon seen jegeñaale li ci ëpp sax bu mbir bu réew mi tàkkee ñu dugg avion dem ñibbi kon nun bu réew mi tàkkee man ndar laa jëm wala ma dem cumaade ngéyeen toogi fa kon nañu xam ni te loolu sax du ma tax a mucc parce que bu réew mi mm. kee du ma dem fenn mm. am na ñoo xam ne ñi gën a tàng tàng ay wax lu ci ëpp mani la bu ré boo demee ca biir rànga doo fa fekk seen doom doo fa fekk kenn ku leen jege kon nag koo xam ni mhm. sa ndey liggéey na sa baay la daa xam fi nga yem daa dëgg la daa def li nga xam ni mooy sa warugar daa ko laaj itam ñu defal la ko waaye du la jaral mukk am na beneen phénomène tam buñ gis uh, ci ci kii muy mbiram enregistrement maanaam sutura gi tamit dafa mel ni amatul ci géew bi rawatina ci politique bi ndax am na benn kilifa buñ ñu wax naan lam doon wax ñu ñu def ko ci place publique bi yooyu aussi day loo xamante ni day ne espace public bi xam nga xam nga sama mag ju baax ja Alaaji Tamsir Saaxo day wax nii garab gi ñuy tudde sutura garab googu nee na amatul Sénégal ndax nit ñi bala ñuy bëgg ñu fekk loo xam ni ci biir néeg lañ ko war a waxe ñu génne ko ci biti wala ñuy wa war a waxe ci pénc ñu génne ko ci àddina bi yépp loolu mooy sutura sutura dafa am solo nit ki war na loo xam ni ci biir néegam la war a yem am loo xam ni ci biir këram la war a yem ndax nun ñëpp nag am na nu ñuy nëbb hmm. bis bu ne nga xool sa bopp def sa sa sa sa autocritique ni ceey sàngam day def naa nàngam cey bu ko gaa yi yëgoon sutura rek moom mooy tax gis nga sunu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ku ma sa ñëw ni ko man de eh, ngën ji mi def dama damaa njaaloo dama bëggoon eh, nga wax ma lan laa ci yonent bi déglu ko mu ko ni ko man njaaloo ma bëgg nga ma lan laa war a def dégluwu ko mu mu waxaat ko ko mu ni ko bu la yàlla suturaalee mënoo suturaal sa bopp dégg nga loolu nit ñi dañu war a suturaal seen bopp te suturaal seen moroom waaye nit ñi bala ñuy bëgg ñu ngi ci rajo yi ñu ngi ci télé yi di wax yoo xam ne yii xam nga ma ma daanee foofu xam nga def lu bon nettali lu bon ko gën a bon. te yu mel nii sax xam nga ak réseaux sociaux yi dañ koy partagé ku nekk déggante ko est lan moo ci war a nekk yoonu ñi nga xamante ni ñoom lañ fi teg pour loolu maanaam wàllu yoon ngir lii bañ parce que fa mu jëm ñi ngi ciy def nag lu ñu mën ndax xale boobu nga gis ay yaayam ak ay ay jegeñaaleem gi génne ko mu nekk di saaga nit ñi ak yu demee noonu jàpp nañu ko keneen itam bi xale yi dee xeex fee ci stade bi ka doon wax naan loolu baax na ci waa waa mbuur ko ku ko ci defee technologie ba nga am ngir def ko technologie bu ko gën a xarañ moom la police ak gendarmerie yore te danañ ko jàpp danañ la topp ba jàpp la incha allah. Mmh, laaj bu mujj bi rek ba léegi comme ñu ci wàllu politique parce Sénégal aussi ni jàppee politique mooy euh, daanaka ay valeurs yaa ko doon wax sànq ci jikko yu rafet. Mmh. tubaab naan ko ay éthique ak yooyu. Mmh. amu ci loolu est-ce que du moo moom moo tax euh, nit ñi aussi am liberté bi lu la neex def ci géopolitique bi. xam nga dafa am at at moo xam ni euh, le président Jacques Chirac dafa ne woon la démocratie n'est pas faite pour les Africains booba ma ma fekk États-Unis bi mu ko waxee dama mer lool. waaye ba ma ñëw fii Sénégal gis nit ñoo xam ne dañu yaakaar ni démocratie mooy saaga président xas e kilifa yi saaga ku la neex loolu mooy démocratie boo gaaree ci tali bi ñun la fii nga gaaree baaxul nga ni nga ni nga fii euh, dégg nga mbeddu mbuur la. loolu mooy li Jacques Chirac doon wax dëgg la hmm. ndax. bu fekkee ne da nga xam bëgg démocratie da ngay yar sa bopp. ba pare nag di sàmmonte ak àq yoo xam ne yi mën naa la ko gàddul yow mi nga xam ne yaay sama dëkkandoo waaye fii bala ñuy kontaan ni démocratie saaga démocratie xaxaste démocratie démocratie def lu la neex loolu mooy li nga xam ni moo metti ñëpp te nit ñi war nañ ci delloo si seen xel xam ni nag démocratie yar sa bopp la tàmbalee bala ngay laaj leneen. su ko nit ñi xamul tamit ñi leen war a teg ci yoon teg leen ci yoon bi ñu ñu ñu respecté. gis nga bis bu nekk ma nit ñi ni état bi état bi état bi état bi mënul yar ñëpp gis nga nit ñi seen kër lañ leen di yare seeni waajur ñoo leen di yar suñu génnee nag def loo xam ne lii yoon dafa war a dal seen kaw yoon dal seen kaw te léegi alkaati yeeg gendarmerie yëpp sawaratuñ ndax ku ci jàpp kenn bu loxo ba dammee sax. ñu kii am looy ragal ñu weeje la. nga eh, de sa carrière kon nit ñi nañu xam ni alkaati yeeg gendarme yi ci kër yi lañ dëkk. Mhm. suñu ay mbokk lañu xëy na liggéey ba ñu liggéeyu doole faawu am lu dama mhm. bu dara demee nga xam ni noonu la demee léeg nga gis koo xam ne dañ koy jàpp dugal ko ci benn grille dañ koy dugal eh, ci benn grille muy mbëkk mur bi. gis naa ko di mbëkk mur bi bu bu bu bopp bi tojee ak yu noonu nag ñu ni alkaati yi ñoo ko doon torturer yooyu nañ ko bàyyi te may ñi nga xam ne ñoo yore suñu ñu liggéey te di leen bu ñu amee ay rëcc rëcc parce que loolu qui des omelettes doit casser des œufs. loolu la am na solo maa ngi lay sant di la gërëm mbokk yi ñu ngi doon dalal colonel Momar Gueye moom mooy président PEN Sénégal bokk ci association nationale des écrivains bu Sénégal maanaam ñi nga xamante ni ñoom ñooy euh, bind bokk tamit ca Sénat wante teewu fii tey ngir euh, Sénat ñu doon waxtaanee nag tooluwaayu politique fii Sénégal colonel ñu ngi lay gërëm. ñu wéy ba ci politique maa ngi leen ko doon wax sànq daanaka ñaari fan rek moom moo dimanche premier ministre bi jiite tête de liste nationale bu coalition boo ko Yaakaar démb ma nga woon ca Bargny ak Tëngéej ca Bargny nag nee na centrale à charbon bi nga xamante ni moom moo tax askan wa dikk nga ñuy lu yàggul dara danañ ko soppi def ko centrale boo xamante ne ci mbiram gaz lay yëngatu profité na ci ne ñoom wóolu nañ seen bopp ba tax na daal lépp luy fraude ak càcc ci élection yi bëgguñ ko ndax ndam lu leer lan nara am ñu ànd ceeg Ousseynou bi laa jaay ci ambiance bi nag la ñu dalale kii di tête bu coalition Benno Bokk Yaakaar fii ci diwaanu Tëngéej fépp fu cortège am jaar nag ñii di responsable yi ku ci nekk di wane sa bopp ca méga meeting ba mu doon amal fële ci HLM ki di premier ministre wax lu jëm ci lii di plan Sénégal émergent jàpp ne sax ne lii di nit ñi ànd nañ ci projet bu ni mel. ñun soxlawuñu fraude ku wet wet di gis bokku ci biñ jógee ba léegi nii la bi ñu jógee ba léegi fu ñu dem nit ñi dañu adhéré au plan Sénégal émergent lii moom la ñu gis donc li ci des léegi lenn la ku loolu nag ki di tête nationale bu coalition boobu nag dalal xelu li di askanu Bargny lu jëm ci wàllu centrale à charbon bi moom nag jàpp ne na fii ak ñeenti at kii di njiitu réew mi nag joxe na instruction ngir ñu jële ko centrale à charbon def ko gaz ñu des ba léegi ca Tëngéej ki nekk ci ñaareelu place ca convergence patriotique pour la justice et l'équité di soxna Ngoné ndooy moom it jàkkaarloo na fa ak taskatu xabaar yi mu ne buñ ko falee député ci assemblée nationale am na ñeenti proposition de loi yoo xamante ni dana ko def rek ci assemblée ba ngir ñu jubbanti ay njuumte yoo xamante ni mu ngi jëm ci nekkin waa askan wi ñu déglu ko ci micro Ousseynou Thiam Bila Diagne loi yi nga xam ne moom laa mooy ñu séddalewaat alal ak koom-koomu Sénégal beneen poñ bi ci redistribution de revenu mooy xale yi ñuy wax ne ñooy nekk ci mbedd mi boobaak tey ñu ngi ciy sonn pour xale yi ñu wutal leen fu baax fu ñu nekk ay daara am na fi mais munoo jóg nit nga jël daara lañ nga jox ko ko fekk na joxoo ko lu ko gunge parce que jeunes yi amuñu liggéey te saa saa ñu dégg état mu ngi exonéré ay industrie exonéré mooy wàññi mooy wàññi la taxe yoo war a def pour nga décoller baax na état bi préféré lu muy sar lu muy may koo xam ne profit rek lay wut mu jox ko jeunes yi teg ko ci seen disposition beneen bi nga xam ni mooy loi bi nga xam ni moom la ñu bëgg yóbbu assemblée bu ñu fa yàlla yóbboo mooy promotion de l'artisanat boobee campagne it euh, ma ngay wéy ca banlieue bu ndakaaru ginnaaw jafe-jafe yi ci sedd lem carte électeur yi candidat yi ak ña nekk ca liste ñoom it ñi ngay amal ay caravane ak yeneen i yëngu-yëngu waa manko wóolu seen bopp lool benn Bokk Yaakaar it ñu ngay fëgg bunt ya ngi rek ñi nga xamante ni xamun euh, ku ni woteel ñu ñaax leen ñu woteel leen yeneen coalition yi it ña ngay def euh, nu ni ñu ànd ceeg Sow as Malick Diop bu weesoo jaxasoo bu ñu seetlu ci ni ñuy séddalee carte électeurs yi lé ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci liste départementale bu coalition bi di la coalition gagnante Manko Wattu Sénégal nee ñu gisuñu dëgg-dëgg ku leen mën a tee dem assemblée nationale ndaxte ñoom nee ñu li nga xamante ni mooy seeni profil moo gën fuuf bu waa nguur gi. adversaire bi ñu am mooy carte électeurs yi. Pikine Nord 27000 inscrits amaguñ 10 000 yu jot 17000 élection yi nu muy nu muy crédible donc ministre de l'intérieur tey président de la république bu ñu yeewoo daf ko war a wàcce mais toroxtaange boobu ñu tegal askan bi ci cinquante milliards yu ñu jox ministre de l'intérieur mënul organiser wu amul xarañ pour vraiment may nit ñi jàmm. ñi nga xamante ni ñoo faree ci nguur gi ñoom it tooguñu seen i kër rek di nelaw. mooy ñu ñu bind ci liste départementale yi wala sax nationale yi ñu ngi yëngu di yëngal am na ñoo xamante ni sax bind ñu leen fenn te teewut ñu ngay wane seenu bopp ndaxte nee nañu juróom benn député pikin yi bennoo moo ko moom. ñun bu ñu wax du ñaaw te yàlla bu ñu ko waxante suñu problème majeur mooy ñu dem ci population yi xam lan mooy seen problème d'abord ensemble ñu ànd su fekkee ne am nañu ay projet ñu yóbbu ko à l'assemblée défendre ko ni ñu ko war a défendre. su nekkee nag dañoo bëgg a may suñu président une majorité écrasante à l'assemblée ñu bëgg am euh, une victoire au soir du 30 juillet donc d'abord dañuy dem jëli carte d'identité yi mën a aussi tamit xamee suñu liste ban liste la. vu les du président Macky Sall war nañoo mën a gañ nag à ni maître Abdoulaye Wade di defee caravane ci diwaanu Pikine coalition bi ñuy woowee Manko taxawu Sénégal it te nga xamante ni Idrissa Diallo ko jiite ci diwaan woowulee dinañ amal ñoom it doxantu bu mag ci mbedd pikin yi lee meeru Linguère nekk it ministre de des mines moom it àdduna ci campagne bi jàpp na ni daal bilan bu am solo lañ ci def ci ñaar fukki fan yeeg benn yi nga xamante ni ña nga woon ca diwaanu Jolof ngir rek ñaax seen i militant ñu mën a voté moom Aly Ngouille Ndiaye wóolu na boppam ne seen coalition boobu ñaari député yéen xëccoo foofa ca boobe diwaan ñoo koy jël mi ngi yëkkati kàddu ginnaaw ban amalee benn meeting ca Daaro Jolof ñu déglu ko ci micro Modou Mbaye fii ci département bi coalition benn Bokk Yaakaar dafa nekk réalité même bi ci investi yi parce que boo xoolee ni ñu investir ñaari APR ñoo ci nekk titulaire benn fekkee ma ci boole ak benn parti socialiste te ñoom ñëpp nekk nañu en position éligible parce que fii ci département bi amuñ benn naatable que dañuy gagné. donc euh, loolu déjà esprit boobu lañ demee ci ci ci campagne bi ànd ak coalition bi ñëpp campagne bi ça s'est bien passé wax dëgg yàlla dem nañ ci village yëpp waxtaan nañ nit ñi euh, fii ci daara dugg nañ ci koñ yi dugg nañ ci kër yi Linguère également def nañ la même chose euh, te li ñu fi gis dal na suñu xel parce que mobilisation bi après 19 jours de campagne souvent nit ñi dañuy essoufflé mais terewul ñaa ngi taxaw donc li muy won rek ne nit ñi taxaw bi am fi un score très très honorable de 60%. Nous, nous voulons au moins un score de 80% au niveau du département. Et je que dans certaines communes, ca Ziguinchor moom ndaw yooyu yëngatu ci parti bi di alternative générationnelle ñoom it euh, ginnaaw rek ba ni amalee meeting ngir euh, jàppale waa benn Bokk Yaakaar li bëgg mooy bis bu ñu gagné majorité ba ca assemblée nationale président ba nekk ndaw ndax jàpp nañu loolu moom mooy ngëneelu Sénégal nee na nit euh, bu loolu amee dañ ko sàkku ci président Macky lu ñu déglu Oupa Kadior Mendy moom mooy porte-parole ndaw yooyu ci micro Boubacar Diassi Lamine Mandia. ñun suñu mbébét suñu yëg-yëg suñu gëm-gëm mooy fépp foo xam ne ñi ngi fay jël ay décision pour Sénégal ndaw taxaw fa new ñu ndaw yu jël yëpp ndax am na liggéey yoo xam ne ki am xam-xam mag moo ko nar a yor mais yeneen yu si bëri ndaw moo ko nar a yor ndax boo nee ndaw di nga sawar di nga bëgg di nga am yéene donc ñi ngi ñaan daal président Macky Boun Abdallah Dionne ak suñu kilifa yëpp yu fi nekk ñoo xam ne ñoom seen baat ci kaw lépp lu ñu somb lu ñu bëgg dina am ñu ñaax leen ndax ñu teg fa ndaw boo xam ne dafa am yite dafa am ñam dafa bëgg liggéey dafa gëm boppam ñu teg ko foofu noon bu ñu fa teg ndaw rek parce que ndaw la mais ñu teg fa ndaw loo xam ne xam loolu xew nandite la bëgg na liggéey Sénégal ñu loolu lañu bëgg ñu dem fale ca Richard Toll ginnaaw fan yi nag askan no génn nañ ca mbedd amal doxu ñaxtu doon ñaawlu rek tolluwaayu pont bii di Sermat pont boobu daanaka xaw tuuti mu daanu. bañ ko tabaxee léegi nag daanaka ci atum 1930 la ñoom nag jàpp na ni loolu mën naa jural musiba askan wi ba tax na nag kilifa yi daal dinañ ci jël ay matukaay bu ñu sukkandikoo ba léegi ci maire commune ba gouvernement bu senegal jël na yéene daal di cay dugal lu toll ci juróom-ñaar téeméeri million ci sun ay koppar dinañ ci ànd ak meer ba di maam Diop moom mooy maire Richard Toll ci suñ xibaaru ngoon yi bu élément bi jàppandee ñu dem fële ca Pire nekk ca département bu Tivaouane am na benn industrie unité industrielle boo xamante ni sapp nañ ko fa la ko tax jóg mooy recycler rek lépp lu jëm ci loo xamante ni daal ay mbalit laak yu ni mel loolu lañ ca dugal ci koppar daanaka toll na ci téeméer ak fanweer ci ay euh, milliards partenaires ya ca gën a jàppale gouvernement bu Sénégal nag ay allemand la ñu ànd ceeg Cheikh Anta Diop say laati mu mel ni kon euh, élément boobu am nay jafe-jafe ñu dem ca Bandaañi foofa ma nga ca diwaanu Sédhiou askan wa la ñu tek mooy jafe-jafe ci wàllu courant ak ndox loolu nag tax na rek ñoom it ñu doon woote wàllu bëgg gouvernement bi mu jël ci matukaay ndax lëndëm turus lan dëkkee ba tax na rek sàcc yeeg yenn sàmbabo yi ñoom it dañu profité ci boobee occasion ngir def ay ñaawteef ca boobee diwaan Bakary Konté Sala Samb jafe-jafe moom it am ci boobu élément ñu dem ci beneen diwaan ma nga nekk ca Kidira foofa nag it yooye jafe-jafe lañ fa nemmeeku rawatina wàllu ndox ba tax na rek askan wa sàkku ci waa Ofor ñi nga xamante ni rek ñoom ñooy defar forage yi ñu dimbali leen ci lu ni mel ba tax na rek directeur Ofor boobu di Lassane Gagny moom it daal di fay dem rek dik askan wa ne incha allah danañ leen gën a jàppale ci jafe-jafe yi wàllu ndox ñu ànd ci ak Moussa Omar image yi Mamadou Diedhiou. lu toll ci fukk ak ñeenti village mu bokk ci Gurel Ndongoobe Yuppe Hamadi Hari Gabon nekk ci zone bu Kidira ñoom nag toll nañ luy toll ci ñaari ay bés amuñu ndox ki nga xam ni moom mooy maire bu beele di koy dëggal. daa bëgg moo si Gurel Sinthiou Seydou la Seeno Yuppe Gurel Bolli Seeno Samba Coulibaly Hari arigabon ëpp na deux semaine du ñu am ndox. ndox amul programme Faboli dañ ko détourné parce que Faboli benn dex la ñuy wax Falleme Falleme bi dafa am benn maar ki nga xam ne foofu ay jësit ñoo fa nekk ah ay hippopotame ñoo fa nekk te maar boobu mooy Faboli maanaa day toog 12 euh, mois sur douze ndox bi du déplacé projet boobu la ñu ne woon ne ñun bu ñu amee projet Faboli bi mun na servir ndox fii ba Tambacounda fii ba Koupentoum. doomaan gox bi nga xam ni ci jamono ji ñu nga fële ci réew tugal génnee nañu ay millions et million di bënn ay forage di bënn ay teen di def yu ni mel waaye ba léegi si jafe-jafe ndox mi ngi ni fës ci bërëb bile ci jafe-jafe yooyu nga xam ni ñu ngi koy jànkuwanteel tax directeur général bu office des forages ruraux di Lassana Gagny Sakho dikk ngir waxtaan ak askan wi. pour Koupentoum bi mooy def benn forage Kidira euh, def benn forage Goutiri def ay forage solaire une mais long terme yi mooy def li ñuy wax un transfert d'eau am na benn dex bu ñuy wax fabuli bu am ndox bu bëri donc loolu ci étudier lañ nekk doog ko lancer mais loolu mooy solution jox ndox bu sell fi dëgg la bu ñu defee lu rafet dañ koy wane dëgg la bu aussi am na loo xamee ne doxul dañu war a ñëw saytu ko seet ak ñi fi dëkk naka lañ koy mën a. kan wi yeewoo ci Ndongobe City ak yeneen dëkk yi ko wër ñu ngi xaarandi diggé yooyu nga xam ne buñ ko jotee ëllëg si biir seen i jafe-jafe ci wàllum ndox dana wàññeeku. ponk bu mujj ci xibaar yi li gën a fes yéen a kaay la ñu ànd ceeg Mamadou Mohamed Ndiaye. boobee revue de presse bu jàppandee rek ñu ànd ci ak Mamadou Mohamed Ndiaye mi nga xamante ni moom moo nana ànd ak ci boobe revue de presse mu mel ni jafe-jafe am na kon mbokk yi ñu ngi ciy jéggalu euh, ci ñàkk leen dégteel boobee revue de presse ba beneen yoon incha fii la ñu ngeen ci xibaar yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci ànd bi ak télévision Futur Média jox leen daje ngoon takkusaan incha allah seen émission réeru campagne ji la ngeen jëf.